liggéey boobu yi nag buñ koy seet ci ñeenti anam la ko daa defe benn bi mooy dund sunna su yonente bi sallallahu wa sallam ñaareel bi mooy tasaare diineem ji nga xam ne moom la fi bàyyi ñetteel bi mooy tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñeenteel mooy julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax tagg rasulullahi sallallahu wa sallam moom mm-hmm. ponk bu rëy la ci biir doxub sëriñ bi mm-hmm. bañ ne ko ba sax li muy def ci ay xasida ci at mi da ko séddale woon ñaari xaaj juróom benn weer yu njëkk yi muy tagg rasulullah sallallahu alayhi weer ya mujj julli ci moom salaatu sitta bi madaxi sitta atihi batta ma atishay ku ne xam na itam sëriñ bi da doon yeesal diine ji rasulullahi sallallahu alayhi wa moo ko digal muy tërbiye ca Mbakke yi boobee mu fa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 tagg yonente bi sallallahu alayhi wa di lu rëy ndax yàlla ci boobu moo njëkk a tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci biir alquranul karim waaw di wax ne atat fi imtidaaxil mustafa ayu rabbihi suñ borom wax ne wa innaka la ala xuluqin azim moo tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sëriñ bu mag bi nag yàlla da ko defal lakk wii ni mu am ci eh, lu kawe njort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 wax googu sànq bëgg jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa rek moo ko yóbbu ci di ko tagg mu defoon ko nag maanaam ab liggéey boo xam ne gisuñu fu mu ci wàccee boppam wala waxtu yu mu koy def ak waxtu yu mu ko dul def daanaka mu seen dundam gépp ci loolu kon loolu mel na ni tey suñ ko doon jeex ci xasida yi day mel ni foo jëkk jot rek jot mu mel ni kon xasida yi nga xam ne am daaw ko tax a jóg day mel ni bari na lool ba noppi nag di ñu xamalaale itam ci biir tagg yooyu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 min bani numayr <laughs> waaye ginnaaw xasida gi mhm. buñ la waxee foo bokk rek nga xam ne min min bani am min bani amir mhm. ibni sansan ngir wane maanaam ni tagg mën a ami jeexit tagg dafa am jeexit ci mhm. ci ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawat rawatina itam moom it fi ne jëmmi tagg itam noonu la noonu la noonu noonu la defoon ci am fi ne jaaxis jaaxis wax na ay giir yu bari yoo xam ne li leen daaneel xam arab ci réew yëpp rek ak ak civilisation yëpp rek day am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 ca la yonente bi simmi mbubbam jox ko fi jàkk ji sallallahu alayhi wa gis nañ xasaan ibnu saabit moom da ko daa tegal ab ab ab tooguwaay ci digg jàkka ji ne ko qul wa ruuxul qudsi yu yu ayiduka wala tu ayiduka maanaam ruuxul qudsi moo lay dëgëral moo lay tëbb del wax li ngay wax moo tax jëmmi way eh, gis nañ yonente bi daana tegtaloo lu bëree bëri bayitu labid woow yi mhm. wax na ne asdaqu kalimatin qaalaha saairu eh, kalimatu labidin ala kulli cheyin maa xalallaaha baatilu gis nañ itam eh, loolu mënoon damay bañ mu gën na gudd waaye mën nañ ci wax lu bare bare gis nañ seen soxna soo xam ni mhm. yàlla dogal ñu rayoon way juram ca ca ca badar mhm. bi mu ñëwee ci yonente bi nag mhm. def xasiida goo xam ni gu daw yaram la mi ngi tàmbalee ci a muhammadun yaa xayra din i karimatin fii qawmiha wal faxlu faxlun muriqu